ay ñëwaat di waxtaan ak yéen wala ma koy tàmbalee rek mooy di giar suñu mbokku compatriotes sénégalais yi nga xam ni ñu ngi leen tëj ci kaso bi boobu ba léegi te justice daful yoon parce que mi ngi leen fa tëj fàtte leen fa te nag ñi nga xam ni justice nee na. ginnaaw bu len takale taqalee sosal leen nee flagrant délit la len japp donc moy ñu nga xamni dañ len waroon juger avant 6 mois buñ défé 6 mois ci kaso bi dañ len wara bayyi ku ci melni nit dof ku ci melni Abdou Karim gey ku ci melni Cheikh Omar Diagne et cetera et cetera def nañ 6 mois ci jeel bi donc normalement dañ len wara libérer wala ñu tànnal len date de jugement donc loolu yëpp day woné rek né Sénégal du dëkk justice li ñu yàgg wax et puis loolu lu réel la quoi du dëkk justice dëkk bandi la ay bandi ñoo toog ay baadoo la ay biddo haram ay kuttu mbaasaan yu dajaloo moom seen justice di di di di jiite magistrature bi di fala folli ay juge et cetera et cetera donc loolu moom Sénégal ku ko bëgg ku ko bañ mooy dëgg ji c'est la triste réalité parce que Sénégal bu fekkee ni dëkk yi ñu ngi réclamer justice sincèrement Sénégal war naa mën a rusa wax ni moom dëkk justice la parce que amul lu lu nekk ci code pénal loo xam ne ñoom respecté nañ ko faale wu ñu code pénal ils sont là pour leur gueule pour leur tube digestif parce que tey jii luy wane ne Sénégal nekkul amul justice mooy dans l'histoire de la de la de la justice sénégalaise ou bien dans l'histoire même de la justice du monde entier dëkk boo dem mus ñoo juger nit

te moom deewul dawul donc loolu mi ngi doog am dans l'histoire de la de la justice au Sénégal la xewé mom mu ñoo ubbi yoonu injustice yoon bu nga xamni fofu amul justice japp nit tëj ko flagrant délit mu def six mois nga nga téye ko war ko juger koku doo ko juger faale woko li lijjanti am ñu def ay un an ci biir kaso bi ni ni ni nii ci ay euh, détenus politiques ay amidia ils ont elles ont fait elle a fait un an et quelques ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tëj nañ leen def nañ plus de six mois mais justice bi du ci wax yoonam newu ci Sénégal man bu ma gisee sax nit di wut avocat dafa may def ree dama naan mais <laughs> lu avocat di jëriñ Sénégal dëkk bu amul justice ne ñu naan nit ki wutal ko avocat mais avocat yàqum xaalis la parce que avocat mënul am doole ci kaw dëkk bu amul justice boo xam ni juge bi magistrature bi président bi moo koy fal moom mooy même s'en réunion wala s'en fal fal ak folli sax moom moo koy assister moom moo fay toog ak ministre de la justice am donc dëkk boobu amul justice dëkk bi jegewul sax xam nan la ñuy amee justice nest pa mooy dëkk bi nga xam ne defaat na leneen lu lu musul am ci àdduna jàpp ni tëj ko bon def nañ ko ñeneen ñeneen jàpp ni tëj ko euh, ferme te demoo jàppi ji ko du Ousmane tàmbalewul ci Ousmane Sonko bu leen fàtte ni ma Madiambal Diagne moom dañ ko <laughs> dañ daan war ko tëj euh, en prison mais mi ngi dox ay soxlaam bu leen fàtte ni aussi am na ki nga xam ne ci drogue lañ ko jàpp war ko ko cinq ans muy Luc Nicolaï mi ngi dox ay soxlaam donc dëkk boobu du dëkkub droit du dëkkub justice c'est c'est inadmissible et que amul respect sax ay doomu aadama tok ci télé yi naan ay deuk droit deuk justice Sénégal du deuk droit du deuk justice ku len kay wax nak moy ku génn at ku génn fi génn Sénégal voyager à l'intérieur du monde gis man musuma dox ci deuk bu ëpp injustice Sénégal gisugumako man gisugumako ko dox naa ci deuk yu bare bare bare ci aduna mais dëkk bu mel ni Sénégal mosuma koo gis ci injustice dafa dafa kéemtaane dafa jégg dayoo te nag ay nit yoo xam ne la dañuy woote ne ñoom dañoo am diine ñay def loolu ñay teg musiba yooyu na koy ña koy teg doomu aadama yi di leen tooxal di leen tëj di leen taqal di leen sosal di leen tëj ci kaso yi fàtte leen fa ba pare di piétiner seen droit ñooñu ñooñu nee nañ dañuy sëgg ka siggi dañuy sëgg ka siggi seen jëti taq suuf man sax rus naa wax ni ay jullit lañ wala ay chrétien lañ dañuy sëgg di seen jëri takk suuf dañuy dem ay église dañuy dugg ak génn mais c'est des gens yoo xam ni rien à voir avec la justice Sénégal dafa jaar nii justice jaar ne le absolument dara amu fa amul xeeñul sax justice Sénégal jungle lay xeeñ jungle jungle la gënu a rôle ay affaire de animal ëpp sa morom dóor ko ëpp sa morom jaay ko doole ëpp sa morom fitnaal ko tëj ko ëpp sa morom xaalis toroxal ko loolu moo fa am même dans dans la société ay injustice sociale moo fay am parce que même ci biir kër yi amul sax justice même ci biir kër yi laa la wax ku ëpp alal moom mooy mooy moom moom kër gi ku ëpp alal mooy jiite ci biir kër gi ku ëpp alal moom mooy grand bi ki ki gën a ñàkk moom mooy bi dara fofu nonu ci biir koñ beeg partout partout donc Sénégal amul justice am ay inégalité sociale moo fa am manque de respect notoire Sénégal du dëkk en quelque sorte pour dire la la triste réalité moy Sénégal du dëkk doomu aadama waru fa yeewoo doomu aadama waru fa sax yeewoo doomu aadama parce que da ngay subir ay injustices yoo xam doo ci mun dara dara tous rien parce que jungle animal la dañuy lekkante di reyante di tëddante di tëddalante di cangalante lépp a fa am xam nga waree fa et puis ñoom ñooy yeewu faxasu et puis dox seeni soxla rey nit tëj nit toroxal nit loolu moo fa am gis ngeen ay nervi yu jël ay fetal tiire ay nit rey leen dóor ay balu fetal mais jàppuñu benn nervi donc dëkk boobu mu ñu vraiment il faut il faut même pas oser dire que c'est un pays de droit loolu doomu aadama ki baax ki juddu ci juddu gu baax amoo droit taxaw naan Sénégal est un pays de droit un pays de droit bu ay policiers di collaborer ak ay gendarme di collaborer ak ay nervi jox leen ay fetal jox leen ko touché leen ko ñuy tiire ay doomu aadama ay dit di daanu di dee comme des mouches ñu leen di diiri di leen yóbbu ak ñu gaañu ñu leen di tëj ci kaso yi di leen toroxal di leen dammaka rey dëkk boobu noonu sincèrement man musuma ko gis en quelque sorte musiba la sax ak nattu yàlla la doomu aadama juddoo Sénégal loolu nattu yàlla la nattu bu métti métti métti ku lay wax naa ne am na ci fierté day kàcc day kàcc amu ci benn fierté parce que dëkkam bu taxawee ak yeneen dëkk yi amul du am fierté fierté loolu mooy fierté fierté du toog sa dëkk rek naa non am naa fi fierté da kacc amoo fa fierté boo amoon beneen bëgg-bëgg def ko amoo ko munoo ko bu la ko yàlla mayoon da ngay daw dangay dem sa yoon da ngay foofu yëpp parce que nga xam ni fii amul droit amul démocratie c'est un milieu animal un milieu herbivore la milieu omnivore la ñuy lekkante di waraxante et puis affaire de dëmm la moo tax ku fa yeewu yaa ngi musloo ko sëriñtoo ko takka ko diwoo ko naan di muslu muslu ci dëmm yi parc zoologique la parc zoologique du Sénégal yàgg naa ko wax Sénégal parc zoologique la man sama souhait moo ne woon ñu génn ñëpp Sénégal vidé ko dafa ay animaux dafa ay euh, dafa ay lion dafa ay dafa ay euh, lu mu tudd ay ay gaynde dafa ay bukki dafa ay ñay dafa parce que loolu la xeetoo loolu la xeetoo suuf soo xam loolu la xeetoo doomu adama yi respecté te wuñ doomu aadama du dara foofu dañ lay rey te du tekkiwuñu dara quoi doomu aadama moo tekkul dara ci kanamu sax seeni njiit waxuma laa nag nit ak nit donc voilà donc ce qui normal te ñu koy wax code pénal code comme on le dit souvent code pénal dans les code pénal code pénal code pénal code pénal bu la ba pénal donc dans code pénal kon ñun code pénal code pénal code donc code pénal ni code pénal mois ci casobi six mois un code pénal nga ci L 200 L 400

nit dof bi nga kott fenal ko tëj ko def na 6 mois yow yaa wax ni da ko war a libéré libéral doomu jàmbur ci yow kott fenal yow mi nga kott Abdou Karim Gueye ba fenal ko sosal ko tëj ko ci kaso bi yow mii si sa biir bind boobu noonu nee nga da nga war a libéré kon ki nga xam ne mooy Abdou Karim Gueye libéré ko kon dëkk boobu du dëkkub droit du dëkkub démocratie du dëkkub justice ay doomi xaraamata njaay ñoo booloo di jiite jeex na affaire de banditisme d'état la point y a nit nak mom bo nekké Sénégal demo di sonu etc etc cetera et xamoo yàlla mayu la chance su génn maîtriser la géopolitique bo génnee donc euh, dëkk boobu da ngay tok sa xol sax lu neex bo taxaw naan ay oh amna ci fierté da ngay kàcc amoo ci benn fierté sa bay sax amu ci fierté donc bo sañoon say sa bay bu muy ji say am nu muy demee ak sa yaay da nga naan ko juree ma ci dëkk yu baax ya kottu fen dëkkub kottu fenal la dëkkub sàcc la dëkkub dëkk boo xam ni ñu ñi ña ñuy valoriser sax ay sàcc lañ ñëpp dañ leen jàpp la mais dans le sac ñuy sàcc Idrissa Seck ñaata milliards ngeen lañ ko jàppee tëj ko ci kaso ndax sàcc sàcc ay milliards ñu sàcc ñu tëj ko mi ngi noonu génn ak fierté di wax di wax nu mu ko neexee di di tëgg di dóor fu mu ko neexee Khalifa Sall sàcc sàcc ay milliards lañ ko jàppee moom it sàcc kees kees bu mu téye du ko mëq mëq ko ba mu jeex takk ñu jàpp ko noq ko ci kaso bi ay ay we at yi at at génn na mel nga noonu toog naan day woote naan day woote pour ñu votel ko même chose ab ki nga xam ne mooy Karim Karim nekk na fi ministre yëpp ministre comme yalla comme yalla ministre yalla place yalla sax la toogee won bayam djité fi jël ko def ko ministre de la terre bi nga xam yalla ko mom ministre du ciel bi nga xam yalla ko mom ministre du vent ministre des des rivières ministre des mers lepp la doon war war ay milliards et milliards sàcc ko melni ni yàlla tay mi ngi woote nan kay leen votel ma donc xam nga bu ñooñu sàcc yooyu ñu japp flagrant délit buñu tawé bay naan ay kay leen votel ma nga xamni ne dëkk bobu amna problème parce que dëkk buñu ñu respecté dëkk bu mel noonu bu doon fii lañ ko defee kenn ñemewu ci ci ñoom am fit taxaw naan kaa leen votel ma donc ñoom ña ngay ñaan amnistie nañ leen baal pour ñu ñëw ay jàppee ñu ñun doomi xaram jàppee ñu ñun tekkuñu dara pour ñu ñëw jëm du jël sañuy carte dem votel leen ñoom sàcc yooyu noonu nga xam ne ñu continuité continuité sàcc yi Macky sàcc la sàcc bu mag a mag a mag ñu mu ñu mu àndal tamit ay sàcc lañ ñëpp xam nañ ko parce que ay boo leen xoolee tekkiwuñu dara ay multimilliardaire lañ ñoom ñoo ay sàcc lañ donc ñu loolu manque de respect notoire la bu ñuy won ni ñun ñoo ñun ñoo baaxul ñoom baax nañ parce que ñoom sàcc nañ te ñëpp reconnaître nañ ne sàcc nañ ñu tëj leen ci kaso yi ñii nga xam ne dañoo teg kudd ci seen i dossier ñooñu ñoo ñëw yàpp ñu xool ñu ba ñu xool ba ñu xàmmee ñu ndax xaaral comme ñi ñooy kuttu mbaasaan yi wala ñun ñooy kuttu mbaasaan yi nañ ca xam dara ñun dañuy dem wax leen kaa leen votel ñu ñoom sàcc yi ñun ñu ginnaaw di daw donc kon ñun ñoo am ñoom amuñu problème parce que ñoom nañ seen sàcc assumé nañ li ñu tëjee kaso yi ak mafia organiser bu ñu bu ñu doon ak tam manipulation yi ñuy def wala waxtaan seen biir bay baalante ñoom ñëpp sàcc bu baal sàcc la loolu la rek Macky Sall ab sàcc la ci huit milliards tey wane yi la njëkk sàcc jox Idrissa Seck Idrissa Seck sàcc moom tamit ñu tëj ko ci kase yi génn ko négociation euh, le protocole de Rebeuss ñëpp yëg nañ ko fi mafia guddi yi protocole Karim Wade am na fi tamit mafia guddi guddi lañ ko bàyyi mu génn dugg avion dem yoonam ñu mafia Khalifa Sall ko <laughs> donc ñooñu ay sàcc yu mag lañ donc ñooñu moom vraiment dëkk bu baax toog di wax di wax ci ñooñu wala Macky sàll ak i nitam sincèrement dëkk boobu am na problème léegi nag dañuy bëgg a xam ba ñun yàlla moo ñu xalak ñu xam ne ñun peuple bu yàlla xalak la parce que yàlla am na peuple yu muy xalak ah yàlla am na ay peuple yu mu xalak yàlla ba léegi mi ngi xalak ay peuple comme nu mu ko doon defee peuple Gomor rek Sodom ak et cetera et cetera peuple yu bëri yàlla xalak na leen fi ba léegi yàlla mi ngi xalak ay peuple du fekkee nag peuple ñun suñu peuple peuple bu yàlla xalak la non mooy sincèrement ñu jëlee ko ci loxo sàcc muy Macky Sall ak li ñu daj Ablaye Wade li ñu fi daj Ablaye Wade y a eu quatorze morts ay ba nit yuñ tiir ay balu fetal du Diop ci la dee oto bi moo jaar ci dëkk biir bi xot xar biir bi butit ya génn kooku bu leen fàtte ni kooku mooy baayu Karim Wade boobu noonu yooyu yëpp Karim Wade nga fi woon moom ak ñi fi nekk nii ñi fi nekk nii même système la ab Abdoulaye Wade fi nekkoon rey fi ay doomu aadama téere leen balu fetal ñu daj lu nekk nag man damm nañ fi samay loxo dóor nañ ñu fi lu ne daj nañ ko fi pour mun fee changer bu mu ñëwee Macky Sall la Macky Sall def na 12 ans 12 ans de trox tànge 12 ans de tëjum kaso def continuité yi nga xam ne Ablaye Wade moo ko fi bàyyoon daf ko ajoon rek continuer Ablaye Wade dafa liggéey liggéey bu salte Macky Sall ñëw yeggali ko donc nag sàcc yi nga xam ne vautours yi tourné autour di xaar lu ñu lekk mooy Idrissa Seck sàcc la ma euh, Macky Sall sàcc la Karim Wade sàcc la baayam sàcc la ki nga xam ne mooy Khalifa Sall sàcc la donc nag buñ demee ñun askan wi dem bay votel ñooñu mooy ñun peuple bii peuple bu maudit la peuple bu maudit euh, population bu maudit la population bu yàlla di xalak la donc loolu nag dafa am benn boroom xam-xam bu ma ci waxoon benn benn mbir nee na ma gis nga dëkk bu yàlla xalak boo ciy jéem dara yow yàlla dalay rëbb mi ngi mel ni ab yàlla jàpp yàlla jàpp benn doomu aadama di ko xalak di ko toroxal yow nga dem di ko sarax wala di ko jox kooku bu fekkee ni am nga baatin boo ko defee yow yàlla da topp donc bu fekkee ni sénégalais yi yàlla da leen a xalak ba ñu war na pare pour naan dañuy voter Idrissa Seck képp ku nekk bitim réew bàyyi bàyyil sa baay dee bàyyil sa yaay dee bàyyil say frère dee bàyyil say sœur dee ndax boo leen yónnee un franc yàlla dina la xalak yow parce que yow ci ñëpp xalak lañ bokk parce que dañu leen a xalak ñoom ñoom ñu dem xalku torox tak ba jël fal Ablaye Wade mu toroxal leen rey ci ñoom seen njaboot ñu jël fal ab Macky Sall mu toroxal leen rey ci seen njaboot ñu dem naan dañuy fal ki nga xam ne mooy Idrissa Seck bi nga xam ne moo leen trahiroon fen leen sàcc leen toroxal leen bu ñu demee ba fotel kooku ah yow mi nga xam yaa ngi bitim réew di rayante muslul bàyyil sa baay dee ci torox tànge moo gën foofu nga koy jox un franc ndax yàlla moo koy nekk di ko toroxal yaa sa yaay doo ci torox foofu yàlla moo nekk di ko toroxal du sa du yow bul ci participer 1 franc bayil yalla toroxal ko ba mu torox tot sa rak bek sa frère ak sa sœur bayil yalla toroxal ko mu ne tot parce que mom mo xol xognarti dem ne day fal ab sacc kon koku nak nga xamni problème la am ak torox tangé mom torox tangé c'est c'est une longue histoire yalla ci bopam mo nek di halak peuple bobu moy peuple bu dem banane day votel Khalifa Sall ñëpp japp ko flagrant délit wala nan day votel Idrissa Seck wala naan day votel Karim Wade mooy Abdoulaye Wade wala naan day votel Macky Sall wala ñi ànd ak Macky Sall moom moom moom mooy ñoom ay Amadou Ba ak ay mbalit googu noonu mbalit euh, weñu duus yooyu noonu wala saxu day yi ñooñu moom jumba sax tudd seen tur parce que euh, du respect sama nation ak lu ñu daj ak deret gi fa tuuru ak ñaq gu fa tuuru ak ñaa jaayante gu ñu def depuis plus de douze ans ma naan damay citer vraiment xool dëkk bi ba dëkk bi xool ma ma am naan damay dem na mu koy jéem a boole pour mu sëy ak benn Amadou Ba bi nga xam ni euh, dayu dayu kii la lu mu tudd saxu day la wala wala xetu duus la xetu duusu marché la wala wala benn ñeneen ñi daal du ma leen tudd daal vraiment ñooñu moom du respect may may wax Sénégal di leen tudd yàlla ma ci yàlla muccal te yàlla ma ci yàlla musal donc yéen préparez bu bien bu askan wi falee ñooñu kenn ci doomi xaram yooyu sàcc yooyu ñooñu torox ñooñu jàpp leen ni du ci ñoom yàlla moo leen xalak peuple bu yàlla xalak la peuple bu yàlla xalak nag lu cee gën nan da cee cay jéem a participer wala da nga cay jéem a joxe sab dërëm wala sa ñaq yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla ci yàlla musal yàlla bu ñu doon peuple bu ñu xalak yàlla bu ñu bokk ci peuple bu yàlla yàlla xalak ci kaw suuf yàlla bu ñu ci bokk donc yàlla bu yàlla yàlla nañu yàlla mucc musal muccal ñu ci Macky Macky sàll muccal ñu ci Karim Wade muccal ñu te musal ñu ci Idrissa Seck ak i pexeem ak seen i ñoñ ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ne loolu moom yàlla nañ ci yàlla muccal te musal ñu ndax lañ ca dund musuñu koo dundu nee naa leen defi Guinness askan bi nga xam ni euh, peuple bi nga xam ni seen njiit yu dàq fen ci Afrique sow jant ci kaw suuf ñun ñoo ko am ñun ñoo ko am te mënuñu ci dara ñun nag la ñun la de malgré que nag ñun fàlluñu gis nga fan ku bon mu dem indil ñu bon rek parce que ku bon ku bon lay àndal xaj bu nekk moroom xajam borom xaj ba lay nuróol xaj bu nekk borom xaj lay borom xaj ba lay nuróol donc ko fal Macky Sall mu indi mu doon xaj mu indi xaj rek Macky Sall mënoo ko fal mu doon xaj indil la ay xar ak ay bëy ak ay déedéet ay ay xaj la lay indil yu am rage di mataate mooy ñoom Amadou Ba ñoom ñeneen ab euh, Abdoulaye Daouda Diallo koy xawma la nag la biir bu daw yi mooy biir bi daw yi daal nekk ci ginnaaw moy day Macky Sall dafa dala sax donc imaginez-vous dans <laughs> le catastrophique maintenant parce que ci fan rek lañ ay lañ parce que c'est ku la donc ak rek lay ngeen di Tall Tall rabu na am mais Aïssata Tall Sall mom rabu la yor mom rabam caga caga caga boo xam ni euh, euh, slip bi euh, vraiment yaakaar naa ne daa def daa daa am ay kut Aïssata Tall Sall moom yaakaar naa ne slip bu caga la lay lay solo slip bu caga la jiital moom slip bi daa am ay kut moom moom moom caga rage caga caga ma xaju marché la xaju marché xaju mbedd ñëppay tëwu xaju marché la xaju mbedd mooy Aïssata Tall Sall moom dafa fen a fen rab yu rab yu rab a fen la yor ay rab yu soxor ay rab yu mun la duul la yor moom dafa fen a fen a fen fen fen moom moom moom dafa salte quoi dafa salte moom moom caga moom xaju marché la xaju marché ñëpp ay tëbu xaju marché xaju mbedd moom dafa salte salte ba nga xam ni silib bu caga la yor boo xam ne dafa am ay kutt moom boo ko futtee silib bi yëpp kutt la caga bu international la salte kasaw moo tax gémmuñu caga la yor fen rek lay def caga fen rek lay def parce que lu muy lekk du lew ci fen rek lay def plus de 300 de ci gal yi ñu bind ko euh, wa Espagne afficher ko ñëpp afficher ko dans la monde mu génne né non c'est pas vrai lolu amul existé wu koku mom mom mom silibu bu la yor koku dafa febar koku dafa febar koku rab yi la nak ay rab rabam mo tiaga rabam mo tiaga osé cagatu osé tiagatu osé mentir moo loolu mooy Aïssata Tall kon kon moy luma len wax rek ku ci nek na nga ñaan yalla yalla muccel la nga am dom ju melni ni Aïssata Tall sal caga politique la caga politique xaju marché la xaju mbedd te tëbu rek tëbu rek moom silib bu daa ami téeñ yàlla nañ ci yàlla muccal te musal ñu ci ku mel ni Aïssata Tall Sall mais nag c'est normal <laughs> caq nee naa leen xaj xaj lay mor lay àndal Macky Sall ab xaj la mu for ay xaju marché xaju mbedd Aïssata Tall Sall xaju marché la ah Félix Antoine ñàkk jom xaju mbedd la ah ñoo ko ay xaj yoo xam ne amuñu buum amuñu borom dañuy taxawal rek di wëndaalu léegi nag Macky Sall dafa ñëw moo tax ñuy cangalante seen biir dañuy cangalante mbow mbow mbow di cangalante rek ay xaj lañ ay politicien lañ chien politicien xaj kuti mbow mbow Aïssata Tall Sall xaj bu jigéen la xaju marché la xaju mbedd ay politicien lañ kuti mbow mbow lañ ay xaju yu bon lañ yu rage yu am ay kut yu am ay kut seen tuun yëpp kuttu la moo tax ma ne la Aïssata Tall Sall silib dafa fees dal ki déñ fees dal ki parce que xaj moom boo yëkkatee genn gi kutt kutt kuttu xaju marché xaju mbedd kutt kese lañ te dañuy rage ku ñu màtt nga yàqu moo tax mooy kuñ fenal dañ lay fenal nga yàqu gis ngeen Aïssata Tall dem na ci tubaab ya dafa am rage fen fen fen fen fen ba tubaab ya taw du tiit ñëwati na trois cent sénégalais yi dee lap ca géej ga adduna bi di ko wax mu génnaat defaat discours am defaat benn communiqué fen donc gémmiñ gi dafa rage lu mu wax du baax gémmiñ gu rage la gémmiñ ko ku mu màtt nga yàqu ku màtt nga yàqu ba ñu rayee sénégalais yi ba mu génnee fen na gis nga matt nag ña dee ña dee ba bàyyiwul sax ñu dee ñu mattal la leen fanal la leen fa kàccal la leen ne leen ñee légitime défense la dañ leen a rey ah, waaw moom ku mu matt nga yàqu ay Tall ko gis dawal ku matt nga yàqu silib ba daa am téeñ tuun nga daa am kut fan rek lay def moom Aïssata Tall Sall ak ñoom Antoine ñàkk jom ak yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla bu ñu yàlla may njaboot gu mel ni ñoom yàlla nañ ci yàlla rawale yàlla buñ ko am bu ñu naree am doom bu mel ni Aïssata Tall Sall yàlla yàlla nañ yoom yàlla bu ñu am doom bu ñu naree am doom bu mel ni kii nga xam ne mooy Antoine ñàkk jom yàlla nañ yoom yàlla bu ñu am doom yàlla nañ dee duñ am doom yàlla man de bu ma yàlla naree may doom ci mel ni Aïssata wala bu ko jege rek yàlla bu ma ko may yàlla ku juddu faatu yàlla na ñoom ñëpp faatu yàlla bu ma yàlla naree may doom bu jege rek Antoine ñàkk jom yàlla faatu yàlla bu ma dundu yàlla na dee bu dee bu kaw sedd guy cagti cagti ba faatu yàlla bu mu fa def benn fan yàlla bu mu am doom bu def benn fan bu mel ni Aïssata Tall Sall bu def benn fan ci kaw suuf yàlla bu mu am doom bu bu mel ni Antoine ñàkk jom buy def benn fan ci kaw suuf yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla gis ngeen ko fan rek la nekkee ñoom ay njiitu fenkat yooyu nag loolu il faut ñu góorgóorlu ci yàlla muccal ñu ci parce que vraiment depuis bu ñu juddoo ba léegi ay doomi xaraam rek lañuy la ñuy fal ay doomi xaraam ki doomi xaj rek jot na nag ñu woon suñu borom subhanahu wa taala ne ñun bëgg nañ am lu baax lu baax loolu nag ñun ñëpp gisal nañ ko suñu bopp dofuñu a jàppuñu tuxuñu naanuñu on est très lucide ñoo leen gën a yeewu gën leen a baax gën leen a baax yi juddu parce que ñoom it boo xoolee opération rëbb dëmm ñoom ñëpp seen juddu baaxut seen juddu baaxut loolu moo tax ay xaju marché lañ ay xaju mbedd lañ voilà ñun nit nga xam ne ñun dañuy wax ne ñun ci juddu gi baax lañ bokk fu baax lañ jógee il faut ñu koy wone ni ñu koy wone mooy le choix choix wu doomu aadama mooy wone ni kii ku baax la wala ku bon la judd dund nañ fi nag depuis Senghor fekkewuñ ko Abdou juuf ñëw toroxal ñu tott Ablaye Wade ñëw toroxal ñu tott Macky Sall ñëw toroxal ñu tott ak ñooñu nga xam ni bugguma leen a tudd mooy ñoom euh, Karim Wade ak ñoom Idrissa Seck ak ñoom Khalifa Sall un enseignant histoire géographie multimilliardaire Idrissa Seck taxawaalukat multimilliardaire doomam sax milti multimilliardaire la waaw Abdoulaye Seck sax milti multimilliardaire la Nous sommes seen doom yi ay des lañ té ñom ñep seen multimilliardaire la chômeur la fi wax chômeur donc encore une fois il faut que nous nous ñun ñi ñu gorlu ba yalla muccal ñu ci ñu ci ci ñu ci maintenant lenn mom mo fi am mo fi des mo tax gisul sa temps samay wax sax man pour man le temps des actes n'est pas le temps des paroles te ñun dañu wara a acté lu ñu wara a acté moom mooy Macky Sall mo nekk di wax Bo ba légui mi ngi ratatati rek di ratatati rek mais troisième vague bi il faut ñu préparer ko parce que Macky Sall won na carrément ni xex day am nit mënul amul ku Yalla may baatin mu taxaw Sénégal né xex du am Xex bi da fay am Ñepp ko gis mi ngi leer nañ xex bi day am par la force doole mbaam xex bi day am. parce que Macky Sall mi ngi koy annoncé annoncé na ko annoncé ti ko waaye ñun ñu ngi koy xaar loolu moo tax amul benn prisonnier politique boo xam Macky Sall bàyyi na la moo tax vraiment kàccu APR yi ngeen muslu ci tamit ngeen di muslu ci muslu leen ci kàccu APR bu ñu yeewoo rek jël benn détenu politique rek ne libere nañ ko def nañ ko fi Jomaay Fay fekk gaa yi xaaju Macky Sall parewul pour libérer ces détenus politiques parce que moom xam na ni troisième vague day am te dafa jàpp ne ñooñu ils sont influents ci xeex bi Macky Sall ci jàpp jamonoy jàpp la nekk mais newul ci jamonoy libéré donc bu bu ñuy yeewu di xalaat sax ay kii dañuy libeere comme niñ ko defee sànq rek sax sax ñuy yeewoo ne kenn libéré nañ ko Sénégal loolu waru la ci jaaxal dañuy yeew rey nit te nit deewul donc noonu la ñuy yeewoo tamit libéré nit fenkat yi ñu ngi ci Macky Sall rek la ñuy def seen àdduna ñii dañoo fen ba marasme ñii fen ba jeex ñii fen ba wow ñii fen rek fen rek la ñuy def comme Adji Sarr jigéen ñi Adji Sarr lañ mel góor ya mel nii Antoine ñàkk jom wala jigéen yi mel ni ay Aïssata Tall Sall donc ñooñu yàlla nañ ci yàlla musal ak ñoom donc troisième vague bi day am lu leer la lu leer ñun ñëpp xam nañ ko situation politique bi guerre lay xeeñ Sénégal amul leneen guerre guerre bu saf sàpp lay xeeñ parce que Macky Sall dafa taxaw pour ne Sonko du dem li nga xam ne dafa jógoon ca njëlbeen ba ci jafeer affaire Adji Sarr depuis deux mille vingt et un Macky Sall musu cee wàcc musu cee wàcc mooy toroxal Ousmane Sonko ba mu ne tot ne ko doo dem ci élection yi choisir ñoom moom ay nitam ñu xeex seen biir te ñoom signé nañ ko loom yëpp comme quoi ko ku ci falu tamit doo ko toppee dara moom ak njabootam loolu dañ ko signé ñoom ñoom ñëpp Idrissa Seck signé na ko ak Macky Sall Karim na ko ak ak waa PDS ki Khalifa Sall signé na ko ak Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ay fiisam mom ay fiisam lañ moy cogge jek cagge jek cagge jek jàgg ji ñoo ñoo duñ problème moy doomam yi top ci ginnaawam moy sax douci donc ñooñu ñëpp signé nañu Macky Sall comme quoi que bu len amnistie et cetera et cetera bañ def ay élection ku ci genn tamit waro laal njabotam waro laal daram da nga wara a sax liggéey ak mom mom mun na la conseil donc voilà lool nak gis nga mbalit bobu noonu lepp lañu wara bu touri ñun bëgguñu dara foofu bëgguñu Idrissa Seck bëgguñu Khalifa Sall bëgguñu Karim wad, bëgguñu Abdoulaye wad, bëgguñu Macky Sall ki ñoñam ak gangoram ak malfaiteur bëgguñu ñoo ñëpp système bi la brok xam ngeen brok dam système bi la dam damm ko parce que boko damé sax mu dess fa de mun na wat système bi la dam brok karak dam ko ni ba mu jeex ba nga xamni fi amul lenn nga mun nga fa duggal sa bop ñu sanni li gauche sul li loolu système bi loolu lañ loolu moo ñu tax a jóg te boobu ba léegi Macky sàll loolu la ñu bëgg a xañ pour bu taxaw ne ñoom système bi la ñuy changé Macky Sall ne non système bi kenn ko fi changé man maay décidé ci ku leen war a jiite ak ku leen war a jiite loolu moom <laughs> ay waxi kese kese la léegi.